Euh, am na ñu ne euh, fukk fan ak guddi fukk fan ak benn euh, wala guddi fukk fan ak ñaar ci la gane si àddina am na ñu wax guddi fukk fan ak ñett muy tolloo xayyun donc yooyu yëpp am na ci am na yeneen yu ci am am na yoo ñoo xam ne sax ci yenn borom xam-xam yi wane nañ ne amaat na du weeru gàmm gi ñu jël sax am yeneen weer la yooyu yëpp ñëw na ci waaye li ci am solo mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu at mi jamono gi weer yi lépp mooy borom. donc fu ñu ko tàntal rek ne ko lii tànt gi moom moo ko moom weeru gàmmoom la wala bésu gàmmoom la man jàpp naa ne euh, mbir mi dafay egg li olof di wax mbuum day dellu ci mbooy booy ba donc moom moo koy yeyoo donc bu fekkee ne ñun suñu wàll la nag euh, suñu wayjur di suñu maam euh, di ki nga xam ne moo sanc dëkk bi moom moo tànnaloo ay njabootam bés boobale mooy guddi fukk fan ak ñett ñu ci màggal li nga xam ne mooy ganeeg àddina ak yonent yàlla Muhammad sallallahu ndax moom loolu la ci jàpp ndax bu euh, bu ñu fàttewul yun mooy tolloo fukk ak ak juróom-ñett te ñun guddi googu la ñuy jàppee li nga xam ne mooy gàmm xayyun nag mooy luy dund ci turu yàlla yi la bokk loo xam ne dafay dund suñu borom ci xayyul la bokk loo xam ne dafay dund te du musa dàkk ba ilaa mi di donc loolu tamit bokk na ci li nga xam ne jël nañ gàmmu saañ yóbbu ko ci dat boobu gannaaw bi suñu maam jëlee bés boobu di ko di ko màggale yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gàmmu Sandié dayo bi ni mu toll euh, man jàpp naa ne li ko li ko waral mooy li sëriñ bi won doomu aadama yi mooy yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ñëpp seede nañ ne sëriñ bi buy waxtaan amul xaj ak seen lan nga ci njëkk a dégg mooy yàlla lu ci topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi leneen lu ci topp mooy góor yàlla te loo xam ne la it lu mu gëm la di ko dund di ko dund ak ay njobootam ndigleem yëpp def leen bu leen def lim leen di defloo mooy li yàlla santaane lim leen di tere mooy li yàlla gërëmul donc na ku dajale ay doomu aadama ci loolu loolu suñu borom subxanahu foog mu def ci barke mooy li ñuy wax lépp loo xam ne doomu aadama tàmbali na ko te yàlla rek moo tax loolu dafay sax dafay wéy ba faaw.